لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكي صدق الله العظيم ñu ngi leen di jégalu bu baax temps bi rek moo tax waaye tubarkàlla mënoon naa ko lu bari barkeelu tuuti ci xasit bismillahi rahmani rahim وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا ضللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي التعسير يا الله طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله وآفة عاهة مخصة محن زلزلة شدة والفقر يا الله صدق الله العظيم ورحمة الله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

ولسوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال يا أبت فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبوي على العرش وخروا له سجداً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 أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العلي الأحسن إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم ما شاء الله jërëjëf xam naa ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir képp ku gëm yàlla ak bis bu mujj bi falyakun xayran na ngay wax yiw aw li yasmut wala nga noppi man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir képp ku gëm yàlla ak bis bu mujj bi fal yuqrim jaarahu na taral say képp ku gëm yàlla ak bis bu mujj bi fal yuqrim ngay taral say gan rawaahul buxaari wa muslim xadis bi rawaahu buxaari soloo na ko muslim itam soloo na ko asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim wa salallahu ala seydina muhammadin wa sallama hanziti tuxfatul mutadaraxiina fi tawassuli bi asmail mufaddalin alhamdulillahi wa salla abada xalalazi bihi lana alxuda abada seydina muhammadin wal aali wa sahbihi zawin nawaalil waali هذا وإلى مزو التوسل الحب ما ذوي التفضل فقلت يا حريب يا مجيب صلي على الذي به تجيب واقبل به نزمي هذا يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم ربي بن نبي إبراهيم لغفر ذنوبي واكفني الرجيم وكن بموسى بجاه عيسى واهني دنيا أخرى بوسى وبي محمد رسول الله عليه صلوات الله ثم علم لأحب إيمانا حتى أحب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص وتوفيه بأخي عثمان النورين وبأهل والد السبتين قبل في دنيا أخرى النور والخلوة والمزايا بحق تغطاء بالزبير وحاق زهر نجري من داري وبي سهيل وابد حوي نجني من كل ما أخاف من فتني وبي أبي أخبر الحج ما يفيد إلا جنابي وروحان ما يبيد بحق عبد الله نجل خمي أول دي الحباس كثير حلمي بحق عبد الله نجل خمرا حونك في ما يجور درا السلام عليكم ورحمة الله amoon yéene jàllale benn laaye biir gu nekk ci Tazawudu Sixaar nekk ci tàmbali téere bi sëriñ bu mag bi nee na yaa ayuha sibyaanu ee ndaw ñi laa tashtaxilu an ilhuda bu leen soxlawoo lu dul ak njub wa bil ulumi ishtaxilu da ngeen soxlawoo xam-xam ya bépp xam-xam bu am njëriñ rek da ngeen ko soxlawoo njëkkee ci tawxid teg ci fiq tasawuf ak yeneen xam-xam yi ngeen xamante ne dinañ leen may ngeen mën a gëstu ci xadis yeeg téeri xam-xam yi fashtaxilu bil xifzi wa tilaawa na soxlawoo di wattu alquran wa tilaawa ak di ko jàng gannaaw boo leen ko wattoo ngeen di ko nafar foo leen toll ngir bañ koo fàtte wajtanibu majalis ashaqaawa na ngeen teet walla na ngeen wattandiku bépp jotaay boo xamante ne jotaay way tawxiid la mooy bépp jotaay boo xamante ne mën nga fa nekk ba jóge fa doo fa dolli ko ci diine wa laazimu man laa yazaalu aabida na ngeen taqoog koo xamante ne du di jaamu boroomam wala wa laazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ilaa hudaahu qaa'ida te nekk di aji wommatee jëmee ca juma googu fa kullu man baadara waqta sigari sëriñ bi nee na képp koo xamante ne ci waxtu ndawam gaawantu na ilal huda jëm ci njub istaroxa waqtal kibari nee na kooku bu màggee rek noppalu ci waxtu magam wa man tadaaraka allazi qad faata képp koo xamante ne nag dabaatal na la nga xamante ne faatoon na ko minal laxa ci ay neen wa ammara al awqaata mu dundal waxtu ya bi tawbati nasuuxi ci tuub gu sell wal iqbaali ilal ilaahi ak jublu suñu borom nee na kooku faaza bil kamaali texe na ca texe gi gën a mat sëriñ bi nee na haakum nasiixati lakum nee na jàpp sama laaye biir gi fatarbaxu boo leen ko defee dingeen ngeen dingeen di ngeen jariñu duniya fii ci àdduna wa uxra ak fële ca àllaaxira maa qawmin ànd ak nit yoo xamante ne aflaxu texe nañ ok loolu la woon jërëjëf ay gone yoo xam ne ni ma ko waxee sànq ci réew mi la ñu màggee bind ko ci seen mbindum loxo muy xasida googu wasilatu boox fas yéene la ko jébbal nag muy sunu kado su ma ko mënee wax ndax mënuñu la defal leneen luñ fi wax rek def nga lu ëpp loolu alxuraan ba xasida ak lu baax luñ fi wax rek jëf nga say jëf nga ko kon nag bu ñu jëlee xasida googu joxal la ko Mbàkke jubluñ ci lenn rek ngir lu dul rek sant la gërëm la te xamal la ne la bu ñu mënoon wax leneen dinañ ko def waaye nag foofu rek lañ foofu rek la suñu kàttan yamanagum waaye di ñaan nga ñaanu incha allah kon suñu xaadim nga yegal liggéey boobu incha allah. bismillah bismillah ko sëñ Cheikh naa. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada. raabidatu wasilatu rubu Touba Pedemontana ñoo lay nuyu te di la ziyaara ci turu jëwrin yi di la ñaanal tawféex ci barkeb xasiida gi waa daara ji bind muy wasilatu rubu mu di seen barkeelu ak seen hàddiya ci ziyaar bi di ñaan ci barkeb xasiida gi ak bayit wi lakkamata bi bi sukrin warida yaa waasixan wasaxtali bi murtada sunu boroom yàggal taxawaay bi yaatal liggéey bi di sàkku ñaan ci tur wi ngeen tànnal muy raabitatu wasilatu rubu nu mën koo sàmm taxawu ko bi barakati seyxna ahmad al xadim jërëjëf sëriñ bi kon ku xam na ne xasida Cheikhul Xadim duñu tàggale ko alquran lii kaamil bu alquran lañ ci dugal ak geneen xasida ak wasil rubu bu ñu amoon lu ko ëppit jox la ko waaye amul dara lu ko ëpp nag tamit joxe nañ ko ci turu mbooloo mi yépp te xam nañu lii rek mooy sa bëgg-bëgg Mbàkke yàlla yàlla barkeel yéen a ji xale yi amoon itam da cee bokkoon bëgg nañ semaine bu jot ñu jàng kaamil alxuraan ko addiyee waaye nag bëggoon xaside alxuraan ji jàng nga ubbi leen ko rek ñu daal di wéyal fu dimanche jotatee rek ñu jàng xat mu tàmbaliwaat ba ilaa yow mi diini nag du dakk ba mukk bisimilah kon xam naa noonu ko sëñ Xaadim waxe Mbàkke Balla sëñ Tuubaa moom lu mu am lu nekk alxuraan ko may lu mu am lu nekk rek alxuraan moo ko may ñu amoon yéene nag ay bés su nekk ñu fa yéene jàng kaamil alxuraan kaamil alxuraan am nañ yéene fas yi nga gudd fan te wér te barkeel ci liggéey bi mboolem lu ci Cheikh Mourtala façon rek su mborom kàttanal la nga ànd ko ak say rak ak say mag ànd kaak jullit yëpp incha allah fas yéene nañ ko tout tànk yi séddoo nañu jukk yëpp bu soobee yàlla boo ñu ko ubbilee rek incha ñu daal di wéy léegi loolu Mbàkke jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Ahmed jërëjëf yéen waa rabitatu wasilatu rubox ñi ngi am mbégte bu baax euh, dafa am lu bari loo xam ne bi ma ko waxee daf ñu ci daf ñu dañ ko ci gis nun nag su suñu yëfi biir la day am loo xam ne léeg-léeg boo ko waxee sax dañuy daal di lay yë yëkkati ca kaw te loolu dafa mat di bàyyi xel ndax boo fexee bañ yëkkati la ba ca kaw bu ñu la fa bàyyee bu wutul nga am jafe-jafe rawatina nag ñu yëkkati la ba ca kaw nga boole ci di yoqamti gooti te léeg-léeg dafay am kon kii lii am na lu bari lu ci nekk loo xam ne na ngeen ko téye bu baax yal na leen yàlla taxawu ci loolu te sëñ Tuubaa mi mi ko def ak secret yi mu ci def yal na li leen ci dugal dugal na ci nun ñëpp ci barki sëñ Tuubaa euh, kon ni ngeen ko xalaate tamit fas nañ ci yéen ànd ak yéen ci li nga wax ne alxuraan sëñ Tuubaa daf ko def ci alxuraan dafa dafa dafa bari ay mbir euh, démb maa ngi wax ne firi mi ñi koy firi ci tafsir yi boo xoolee tafsir yi ko firi yépp bu ci bari da ci am ay wuute ca biir ñee wax wax la ca des waaye moo tax yàlla ne wa maa yaalamu taawilahu illa allah yam foofu daal dina waraasixuuna fil ilmi yaquuluuna amanna bihi kullun min indi rabbina boo bëggee Euh, yam pour yàlla bañ nga bañ dugg ci lu bare boo gisee sëñ Tuubaa itam di ñaan yàlla mu di ko mu di ko may mu di ko mu di ko mu di ko mu di ko mu di muy xam li nga xam ne moom la ëmb moom laa doon wax démb euh, tafsir kashfin boobu muy wax defe naa ci wasil la tur ba wala mu parteer de ñaar la ci defe naa ci foofu la yakshifu niqaaba nga xam ne dafa mel ne mu prouvé secret yi nga xam ne boo dee def jàngat kon maye ne alxuraan dañu ko war di gëstu ci suuf mais gëstu boobu rek dafa am ñu ko mérito ñoo xam ne dañ dañoo war a méngoo dañoo war a ëmb tag ragal yàlla moo tax alxuraan wa taqullaaha wa yuallimukumullah ragal yàlla googu nag mooy mbir mi moo tax sëñ bi am ci lu bare loo xam ne daf ko ëmb ci moom moo tax mu fonk ko fonk gi sax mooy mission la bu nu yàlla jox boo xam ne daf ñu ko jox ba ëmb dëxañ ci lépp jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi tamit wax ko ci làkk bi mu nàmpoon muy arab xam nga jibril rek moo ko doon wax xëy na arab la ko ko doon wax waaye loolu yoonu kenn nekku ci ndax moom moom képp ñoo ko xam waaye yonent bi moom mënu ko woon a waxe ah am na ñuy wax sax na xam na làkk yu bari kooku itam ay détails la yoo xam ne yoonu kenn nekku ci xam naa daal liñ xam mooy làkk bi mu nàmp di xuraysh di al di arab mais di arabu xuraysh maanaam famille giir goo xam ne ci fii ndax ni moo ko ni koy waxee rek la arab dafa am ay xeet alxuraan boo gisee jàngin yi di wuute loolu moo ko indi mu mel nag ajoor beeg bawal bawal beeg saalum saalum bi ba alxuraan génne ñi di ko tasaare kenn ku ci nekk am na façon boo xam ne noonu nga mën a waxee bu yàqul wax ja rek day dugg ci biir jàngin wa loolu moo tax jàngeen yu ñu wax jàngeen warsh jàngeen nangam nangam loolu lay doon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 kon lépp a ngi ci biir alkitaabu lépp a ngi ci biir wax ne doo kitaab dafa am maanaam bu fekkee dafa nekk benn benn benn benn benn benn benn benn mbir moo tax muy wax ne wa indahu ummul kitaab rek li nga xam ne mooy secret biir téere boobu lépp moom moo ko yore moo tax bu daalika kitaab rek la yam lu wax amul dara nekku ci lépp lu ci nekk rek lu wér la loolee nag moo tax mu jafe te li nga xam ne moo ci gën a am solo mooy allazina yu'minuuna bil ghaybi gëm lu ñëwagul nit sañ na xalaat lu ñëwagul waaye gëm ko nag beneen mbir la ndax loo xam ne xamoo ko xamoo ca dara luy ñëwagul la moo tax alxuraan di ko réyal di xam ne loolu loolu moo moo moo mooy gëm-gëm maanaam loo xam ne xamoo ne àllaaxira dana ñëw yàlla dana àjjana dana ñëw nangam lépp loolu ko yàlla wax ko nee na loolu dafa bokk ci li nga xam ne kon aay yooyu rek ak yi nga xam ne li ñu am ma ngeen yunfiqun ndax bu ñu gisee ni ngeen di doxe nii li ngeen am bariwul di ci di ko dajale di wuti ay kër di ci def buñ ne yàlla ngi kenn ku ne joxe la mu am bu amee bu amul luñ ko wax ci yàlla du ci du ci du ko du ko xool sax du ko gëstu ba xam loolu ki koy wax dëgg la ci moom wala du dëgg la mu am bu dee ñaari dërëm bu dee moom laa doon wax démb rek ma ne damay boo dee xool ci yoonu ci murit yi da ngay da ngay ci da ngay da ngay waaru ndax da ngay dama doon ci Amérique la defe naa ma gis ñu yor seeni mbuus buñ kuñ tollool rek nga génn ci sa poche def ci te doo xool sax ki la ki koy ki la ki yor mbuus bi kon kiy joxe kooku kiy joxe moom ci boppam it ku ne xam na ne ba muy ñëw foofu waajalul woon la muy joxe ndax xamul woon ni kooku dana ko def ki koy ki koy wax it xamu ko moom ba xam ban nit la nga xam ne kon kii am na fa mu xool foo xam ne xoolatu lu dul yàlla jam koy joxe ak ka tax mu di ko joxe loolu beneen dimension bu mag moo tax ma razaqnahum yunfiqoona jooju loolu mën na ëmb na ci dugg na ci biiram ki nga xam ne la muy def yàlla rek la cee defal kon yàlla na leen yàlla dolli ci loolu gëm li nga xam ne tamit moom la alxuraan ma unzila ilayka ma unzila min li yàlla wàcce ci yool loolu loolu tamit ma xam min xablika ndax alxuraan boo ko gëmee moom la yàlla wàcc ci yonent bi dañ ne dafa ëmb tawreet ak linjiil ak téere yooyu yëpp yàlla wàcce woon waaye téerewul nag da ngaa war a gëm yooyu l'évangile yi dañ ko war a gëm tawraat yi dañ ko war a gëm donte am na ay jaxas yu fi yëpp yi ci nekk mooy xam ngeen ne yoneen alxu téere yooyu yi yooyu yëpp euh, dafa nekkoon téere yoo xam ne euh, bi mu bi mu ñëwee euh, nekkul woon ñu luñ dajale benn yoon muy instant muy muy muy Moussa moo tax bi mu ñëwee kenn ku ne da seet na bu demee rek ña fa ña ko wuutu seet kenn ku ne lim jii li ëpp na ay téeméer kenn ku ne l'évangile yi bari na tawreet yi itam gis ngeen ko ñuy wax ancien testament ak nouveau bi nga xam ne lépp dafa am lu ci nekk loo xam ne yàlla moo ko moo te benn yàlla bi la kon bu amee wóote rek nit la alxuraan it na ngeen ko gis alxuraan bii moo leen moo gënoon a war ëppi problème ndax ci arab la wàcc te làkku arab dafa riche te jàpp nañ ne li tax sax mu wàcc ci alxuraan loolu moom nit koo xalaat mu wàcc ci arab arab dafa gën a riche ci làng yi ndax bi yooyu téere yépp wàccul ci alxuraan ay hébreu la ak leneen yeneen làkk la alxuraan képp moo ci làkk làkk ci arab te arab dafa dafa riche ci làng benn baat rek mën nga cee dindi lu baree baree bare bëri kon ndax loolu moo tax mu wàcc ci moo tax ñu bari dañuy defe ne bu ne arab arab arab dëgg la làng la moo tax damay wax xale ci euh, étudiants yi ne leen ñun jànguñu naar ñun diine la jàng ak xam-xam jànguñu tubaab moo tax toujours problème yi ñuy am léeg-léeg jàngkatu tubaab ak kiy jànge tubaab ki koy jànge moo jël làkk bi lam bëgg jàng te mënu koo xam ci beneen làkk bi jàngee ko ca loola arab bi tamit mënuñoo jàng diine te jàngewuñ ko ci diine boobu waaye nan fa yem nag bañ a dugg ci culture bañ a dugg ci civilisation yi parce que lu ci nekk dañoo am civilisation yoo xam ne ñun rafetlu wuñ ko sax wala ñun sax ñoo leen ko gën le wala ñoo leen gën di ci waaw bu ko defee yooyu yëpp nag suñu borom alxuraan loo xam ne bu ko bu fekkoon ne du làng boobu la kon dana indi ay jafe-jafe lool moo tax lépp luñ ci nekk rek te alxuraan yàlla si te protégé ko tamit nag inaa naxlu na sa naa dikra wa inaa loolu loolu bu amul woon alxuraan mooy ëpp jafe-jafe teewul prix mi lu nekk ngi ci boy kon nag yéen ñi nga xam ne li ngeen koy def ngeen xam ne loolu la moom mu nga xam ne yàlla nee na amul dara nekk lépp xudan li mu taxi na la képp koo xam ne bëgg ngaa jëm fenn te ragal mooy sa bunt kon nag yàlla na ci yàlla dimbale taxaw ci ba nga xam ne eh, li li ci barke bi yëpp dañ de xale yi te mu jubal leen yéen ñi leen di te te samp yéen ñi leen di taxawu yéen itam yàlla taxawu leen bu baax ndax mission la nekkul nekkul nekkul ko ni ngay ko junj rek léegi la léeg-léeg dañuy jaabale responsabilité boobu mooy faral di wax ak masoliya ak sulta bokkul responsabilité ak ak pouvoir bokkul responsabilité mooy ab yan bu ñu la yenee dara nag jiital la la nga xam ne moom nga waroon ngi yëjëwoo mooy fexe ba yenni ko ko ci jàmm ak ña la ko yenn yan lu ko fexe ba mu bañ a daanu même bu daanoo sax dafa bokkut ak ki yanu ki yanu moom bu ñu la wàccee rek da ngay daal tàmbalee sonn bu ko defee nag yow bu fekkee yow da ngaa yanu pexe ba ngay pexe waxtu wu ne te léeg-léeg dafay niroo day niroo day niroo responsable ñu ñu ñu di la xool di la di la di la di la jiital di la def daal nga dem ba defe ne loolu nguur la far da koy niru léeg-léeg ndax xam nga ñoo ngi ne toog ne toogu ci kaw ngeen mu mel ne ñun dara fekk la ngeen di xool du ñun am na lu ngeen di xool loo xam ne du maamoor Mamor la sëñ Touba la mais ñun euh, yàlla it ñu dimbale nañu nag ba ñu itam coow li du bare bari mbooloo maag junni amuñu ci problème boobu danañ xam ne am na ñii li leen tax a jóg du ñoom te loolu mooy dëgg te gëm nañ loolu tamit moo tax duñ ci am problème bu soobee yàlla duñ ci am problème léeg-léeg nag nit moo tax damay wax ne nit ñi sëñ Touba kenn murid yi xëyuñu ci kenn ku dul ginnaaw sëñ Touba waaw ku kuñ kuñ ku kuñ defe ne wala ku bëgg ñu nekk ci sa ginnaaw am nga problème parce que du mën a nekk ñaareel ba bu nekkoon ne dangay ngay daal di seey fi saa si parce que xëyuñu ñu sa ginnaaw loolu itam dafa mat di bàyyi xel parce que kii ko liggéey. liggéeyul caaxaan dafa liggéey dafa dafa dafa dafa liggéeyal yàlla te fekkoon fi ñu koy liggéey ñoo xam ne tamit dañ doon liggéeyal yàlla sëñ Tuubaa dafa fekk ay waajuram fekk fi ay nit yi diine gis ngeen këri diine yi ñi nga xam ne moom la fi dundal woon maam Cheikh Seydi Aji Maalik ñoom ak kilifa yooyu ay nit mais amu ci kenn koo xam ne dafa ñëw xeeb la dafa ñëw kenn ku ne mu jël ci masayixi Seydina Jilaani wasatali ma aw Tijaani bu kullu wér din nga xam ne honnêteté spirituelle moo ko moo ko moom moo ko am waaw nga xam ne ak am na yi fi boppam ba noppi waaye soxariwul keneen la mu am te da ci da caa bëgg sax jël dara nga xam ne kon kooku honnêteté boobu yombul yombul ci diine li ma koy wax ni mu yombul tamit ci intellectuel yi ni ma koy waxee waaw loolu lépp dafa nekk loo xam ne moom daf ko fonkoon daf ko doon doxee kon yéen itam na ngeen muy nun ñëpp nag nun ñëpp ngeen ak mag ñeeg fii amul mag mag mag ñi mooy ñi nga xam ne ñoo samp mbir yi xëy na waxtaan wi sax benn la rek daanaka Euh, waaye euh, mooy li nga xam ne ñoo tëyee mbir ndax mbir mi bu fekkonte ne moo tax xale yi bu ngeen ñëwee yéen jaar foofu kon danañ xam ne yëf yi mënta taxaw waaye ndax ñi fi nekkoon mu sonn ànd ci jaf di bi fi sëñ Mutula di wax ay affaire kër waxul woon pour kër boppam pour doywu ko dara sëñ Touba tamit doywul fi kër dara waa ngi wax ne firdaws ak jannatu naïm jànn àjjana yooyu yàlla lim yooyu mooy foofu la foofu foofu la soxla kër waaye àddina bi këram mooy fu ñu defaroo rek ak defar defare kon kër yooyu ngeen di ak wax loolu loolu la looloo tax mu mën koo doon te it loolu te firnde ji it mooy yu mel nii kon yal na leen yàlla sàmm.